waa sama gars yi yéen a ko gisandoo ni ah fii si bi nga xamante ne nii mooy stade bu mucc ay bi ngeen xamante ne nii moom la ñu suñu président defaral mën naa ne tey nag sénégalais yi wuyu si nañ en masse gis ngeen stade bi nu mu feesee gis ngeen ñi nii ñëpp ñu ngi ñëw mën naa ne nag am na ñu nekk si biti gëm naa ne te li ma gis si biti moo ëpp li nekk ci biir stade bi gis ngeen ko ba léegi nii ñaa ngi dugg sécurité bi doy na te aussi tamit mën naa ne télé yëpp ñu ngi fi ba waa canal ñu ngi fi boo xamante ne tey jii mën naa ne ñëw nga pour gis li nga xamante ne ni mooy lii xew fii nii tey jii mën naa ne engrais bi li ma si gis rek dal na xel ko moo tax sama gars yi kon tey jii xam naa ne tey fii du yomb ah. ba tax na tey jii mën naa ne bépp artiste boo xamante ne nii mu ngi fii Sénégal dina fi teew ba tey jii dégg naa sax ñu ne Massi Dagala am na fi Massi boo xamante ne nii ancien internationaux yi ñoom El Hadj Diouf ak ñoom ñëpp dinañ fi joué ba tax na daal tey daal xam naa ne du yomb tey moom du yomb waa gis ngeen gis ngeen ah tey mën naa ne lépp luy spectacle li nga fi gis xoolal ma loolu xoolal ma loolu si dressage xaj yi xaj yi nga xamante ne mën naa ne waa gendarmerie nationale bu Sénégal ñoom ñoo fi indi seen i xaj pour wan leen liggéey bu xarañ bi nga xamante ne nii suñu armee nationale bi ñu ngi koy def si li nga xamante ne nii muy lépp lépp lépp si suñu kaaraange ñun les sénégalais moo tax gis ngeen xaj bi mën naa ne dañ koy dressé te xaj bi dressage bi ma gis nii mooy dressage bu jaar yoon bi dèjà bi nga xamante ne ni moom moo lay aar si sa kër aar la yow mi nga xamante ne tey jii nii bu danger ñëwee xaj bi dina def li nga xamante ne mooy euh, sécurité totale daal mën naa ne moom la xaj bi di def ak yow. waa gis ngeen sama gars yi yéen a ko gisandoo gis ngeen lii xew ci stade bi nit ñi ñu ngi dugg ba léegi te stade bi xaajagul fees xaajagul fees li nekk ci biti moo ëppali ci biir stade bi ba tax na am naa yaakaar ne tey daal. stade bi dina neex torop torop torop torop torop torop li nga xamante ne nii mooy suñu stade bi sénégalais yi yàgg ko xaar yàgg fi bëgg ñëw yàgg bëgg xool li nga xamante ne ni moom moo am ci biir stade bi tey jii li ñu fi jot a gis nii rek mën naa ne xool yi sedd na ñëpp kontaan nañ ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp amul kenn ku doon sénégalais te nekkoo fi mais ñi nekk fii ñi nekk diaspora bi muy fépp si àddina fépp fu sénégalais nekk rek tey jii mën naa ne kontaan nga sa xol sedd na ndax li ñu gis fii nii wane ne tey jii nii Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ndaxte ñëpp wuy se nañ ñëpp képp kuy sénégalais rek ñëw nga fii si stade bi. yéen ki ngi gisandoo nii ba léegi ñuy dund ak yéen ci ambiance bi nga xamante ne nii mu am fii si naa ne tey xol yi sedd na tey jii mën naa ne bépp journaliste boo xam ne bi mooy waaj a commencé nii masque nga xamante ne en bas gis des foofu ñu koy seet fële mu nuyoo def li nga xamante ne nii man naa ne di saafoon teg ñi nga xamante ne ñoo ñëw seetaan tey li nga xamante ne nii mooy inauguration bi ba tax na daal ci gàttal daal xol yi sedd nañ xol yi nañ xol yi sedd nañ suñu gars ba léegi Monsieur Mamadou Diagnagay, président du comité national olympique et sportif sénégalais, CNOS, au nom de la Fédération sénégalaise de football et de toutes les disciplines sportives,

Euh, confédération de football africaine njiital euh, FIFA ñoom ñëpp daal di teewee mbir mi mu daal di koy lancé gis ngeen ak euh, jeu de lumière yi si teewee spectacle yi nga xam ne amal nañ ko fi ak spectacle yi nga xam si kanam tuuti dina ñëw gannaaw match bi yenn chanteur yi nga xam tamit ay internationaux lañu ñu ngi fii si stade bi war leen bégal si kanam tuuti mi ngoo ko ñu ko gisandoo gannaaw nga xam jiitu réew mi yëkkati na kàddu discours am bokk na si si gën a ràññee mooy stade bi ñun ñoo ko moom suñu yëf la nañu fexe euh, ba sàmm ko nañu fexe ba yor ko ca anam ba mu gënee euh, ba dara du si yàqu euh, ngir bu ëllëg yëpp ñu mën a dalal fi li nga xam ni mooy Coupe d'Afrique des Nations sax dalal fi li xam ne mooy Coupe du Monde ndax bokk na si discours bi nga xam ni njiital FIFA daal na koy wax nee naa li nga xam mooy stade bi da mën na li nga xam ne mooy Coupe du Monde kon ñuy ñaan stade yu mel nii wala ñu renouveler waat stade yi nga xam ni nekk nañu biir Sénégal ba ñu mën dalal li nga xam tamit mooy coupe du monde dalal fi nga xam ne mooy coupe d'Afrique le président Macky Sall nga ñu seen noonu ci biir ànd ak Recep Erdogan di euh, président de Turquie di lance def euh, coup d'envoi bu match yi nga xam ni mooy euh, dox si li nga xam ne mooy vétéran yi nemee ko leen si ay ANC internationaux ay ñu ngi fii ak ñeneen ay Didier Drogba ñoom Samuel Eto'o ñoom ñëpp ñu ngi si teewee nañu lu ñu mel ñu daal di gis coup d'envoi bi président ak euh, Adama Barrow ak ki nga xam ni mooy George Weah tamit euh, ak euh, ki nga xam ne mooy Paul Kagame di le président bu Rwanda ànd ak ki nga xam ne tamit mooy président confédération africaine de football ànd ak George Infantino di li nga xam tamit mooy président du FIFA ñuy lancé ku d'envoi bi mi ngoog ñoo ko gisandoo le président Sall moom jàkkaaroo bal bi. mi ngook dina ka lancé si lugula leyaxul dara mi ngook paas na ko Erdogan Erdogan paas ko weya mu joxaat ka Macky mu jox ko euh, Kagame mu jox ko Adama Barrow mu jox ko mu jox ko président fédération confédération africaine de football delwaat ka vraiment am ngook <laughs> mi ngook mbokk yi bàyyi leen rek ngeen ak am Thank you. Lyon est toujours là. Oui, Malal un beau but, aussi bien dans la conception que dans la réalisation. Sur le plan euh, collectif, on aura vu une action de grande envergure. Ça veut dire que même si les jambes n'y sont plus, eh les têtes suivent encore. et c'est l'égalisation. On est à un but partout entre ces deux formations. Khalilou Fadiga sur le banc. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Remise en jeu. J'aperçois Aristide Bansé. J'aperçois le Burkinabé. Bansé mooy ñëw. Aristide Bansé mooy ñëw. Ah oui, pour joxe sa contribution El Hadj Diouf da nga sonn. Wos da nga xoox. Xoox. Fadiga dugaat na. Euh, que le premier but marqué au stade Maître Abdoulaye Wade, c'est Fadiga qui l'a marqué. Numéro et l'égalisation. Un autre numéro une légende du football continental, Diego Okocha. Une histoire de numéro 10. Sadio avait vu juste lorsqu'il avait offert son maillot à Fadiga au Cameroun en lui disant que c'est vous le véritable numéro Et c'est ce numéro 10 de la génération 2002 qui a marqué en premier un but dans ce stade. L'histoire retiendra cela. Aïcha, les légendes africaines, Titi Kamara, Adebayor, Daidem, il y Sur Victor Diagne, Adebayor bàyyeegul de. yéen yi gudd na naa daw. Adebayor yéen yi gudd naa daw. jekk sikkim laa koy woowee. Ah oui, a de très beaux restes. TI Emmanuel est On l'a vu avec ses grandes enjambées. malheureusement, il avait une faute. Attention, la pénétration de Mamadou Niamamat et ses courtiers Agassa pour Djedje Okocha. La talonnade pour euh, Et c'est euh, Adebayor en position d'ailier gauche. Adebayor qui va chercher. Et euh, toujours Pascal Fainduno de la Guinée.